waa asalaamaaleykum Gambia asalaamaaleykum waa Banjul ziar naa leen nuyu naa leen denc seen wàccuwaay ci weeru koor bi leen baalu axat leen baal ah wax ne am ngeen mbettel bu rëy rëy rëy si yéen waa Banjul dafa mel ni yéen waa Banjul yéen seeraayu dëkk bi yéegu leen ko de yéen jafe-jafe bu nit ñi di dundal sa dëkk bi yéen yéegu leen ko yéen méttiwaayu dëkk bi ci boppam yéen yëgu leen ko yéen tolof tolof bu ne ci dëkk bi yéen yëgu ko yéen lëndami dëkk bi yéen yëgu ko yéen yaa waa Banjul daal yéen you people are okay with Adama Barrow and his government and his people yéen daal you guys are okay with MPP lu ngay di ruulee dëkk bi ah waa Banjul am naa mbettel si yéen de man Banjul nu ma leen yàgg a xamee ne yéen yéen a dee taxawal Gambia. yéen yéen a dee faytal Gambia yéen a dee taxaw ne Gambia métti na Gambia nii Gambia naa Gambia nii na capitali Gambia waaye yéen Gambia di di surux ngeen jël suuf yokk ci suul nu benn yoon da ngeen na suul le Gambia dañ surux xam nga maaba leen def maaba yéen waa Banjul nga jël seen peel suul nu benn yoon ah am si yéen de waaye garaawul dama xam ne euh, yéen da ngeen jël seeni carte dem jox ko MPP for the next five years réew mi lu mun di bu leen yuuxu bu leen jooy de bu leen rëccu de bu leen wax suñ yëgoon waaw for the next five years bu leen yuuxu bu leen jooy bu leen wax ne réew mi suñu yëgoon ndax for the next five years réew mi day gën a métti fek MPP ya ngi amé rew mi Gambia day gëna a day gëna metti ba baadoole yi dañu gëna sona di gëna dé di gëna a té duñ faju sun xalé yi di dé ci rong medicine ba yi di gëna ñak légui 35 dollars sax mënatoo ko jëna caspo power nit no daan jëna 35 dollars ci caspo surtout yeen wa Banjul fofu légui 35 dollars ci caspo sa sax loko hundred dollars si six units loo xam ne da ko daan amee fifty dollars waa Banjul waa Banjul waa Banjul waa Banjul ah seen choice la dëgg la yéen ngeen a vote seen choice la but next five years bu leen yuuxu de waaw bu leen yuuxu def ngeen mistake nag waaye maire bi moom bu leen def mistake bu leen ko nangu mu répète please bu leen.